jërëjëf mbokk yi ñuy seetaan ci wasaare làmb mbokk yi comme niñ leen ko waxee woon sànq ci biir dugg bi nee naa leen ñu ngi jëm ci dëkk boo xamante ni bokk na ci ñett xale yoo xamante ni làmb am nañ ci ñoom yaakaar ci diggante il boobu la ñu dëkk boo waxee Siteu wax caat wax Grand Mbagnick nga xam ne ñoom ñëpp benn lañu tey su ma ñëwee fekk fi caat du ma ko laaj lan la fiy def waaye xam naa ni ñoom ñëpp ñoo bokk fi ñuy roote ñoo bokk ndey ñoo bokk baay gannaaw loolu dama koy nuyu bàyyi ko mu nuyu mbokk internet yi defee ñëweel waxtaan bi caat nuyu naa la bu baax. waaw salaamaaleykum waa Wassare Lamb ñu ngi nuyu di ziar di nuyu ñëpp gannaaw yéen jullit yàlla yéen ziara ñoo jonwaara fop ziara ndun fop ziara mamar ziara képp no seeto la amérique wen ziara ziara ili salum ko i mbaso len ka tuna nofla ñojo bo faya ko wen ziara fo mbege ya fo don cowa fo den e ngaram gene grand mañ ko debin awaja combat gal de jegal 10 nder fo mo sensiyo ingi no yari ci ndam to yari ingi ci ndam na katano yari yari ci ndam kay ngeen mbuda fi la ngaro ci ndam loolu lañ bëgg ñoo nañ fi tey ñu ngi fi ñu ngi si île di Saloum yi lu ko jëlee ñoojoor ba fayaako ñu ngi ziyaar ñëpp di bëggee ñëpp di kontaan ñëpp suñu fans yëpp di kontaan si île di di kontaan si gandun yëpp baay ñu kenn képp kuy bëggee séeréer di bëggee làmb ñu ngi lay ziyaar bu baax baax baax di kontaan si ñëpp ñoo nañ fi tey suñu raq suñu suñu xarit suñu lépp mooy def open press ñu koy Grand Mbagnick di ko ñaanal yàlla may ko ndam le 10 combat mi jur moog Eumeu Sène junior te dina ko ndam ndax biñ ñëwee fii si dëkk bi lañ fi fekk ak gisee nit ñi parce que jour bi tey tey tey tey le toit bi tey mooy làmb ji que le toit ji tey mooy làmb ji dañuy dañuy bàyyi man Grand Mbagnick bi su ma amoon lu ma koy conseil tey bu demee ba stade de mu bàyyi mu bàyyi xel jour bii mu bàyyi xel tey le toit parce que le trois bi nekk na jour boo xam ne mosu fi am mosu ko def c'est la première fois moom ko maa ñëw def fi open presse bi ñëpp ñëpp wuyu si ko yeneen dëkk dëkkaat yëpp wuyu si ko paa mag yi xale yi ñëpp wuyu si ko. bon nag loolu wone li moom li des moom pour pour am ndam la lu la te bu soobee yàlla dina ko may ndam la première fois mu ñëw def fi open waa dëkk bi yëpp wuyu si ko. am si jàmm yu nekk dakaar ak yeneen dëkk yëpp ñëpp wuyu si ko boobu loolu dañ koy sante yàlla bu baax a baax baax. Hmm. lan mooy fort Eumeu Sène junior bi muy bëreel. waaw Eumeu Sène junior daanaka nag mbër la quoi mbër la champion la lépp la mun na bëre teelawul bëre daal. teelawul bëre moom daal foolam dëgg-dëgg xaw ma ko mais xam naa teelawul bëre parce que day bëre fii ba yaakaar mu bëre fële. ba nag fële tëlewul bëre ku muy bëre tam tëlewul tëlewul mhm. ñoom ñaar tey ku ci nekk am na ku bëre nekk avantage am am na ku xeex nekk avantage tey bu ma la jëloon en tant que consultant xool ñaari mbër yi kan la ci bëre gën a nekk avantage ak kan la ci xeex gën a nekk avantage am. waaw man daal na bëri daal na fexe ba jàpp bëri parce que ñëpp loolu lañ ko mun na xeex na mais moom na fexe ba jàpp bëri man loolu laa ko conseil na nga indi xeex mais xeex bi nga indi bu ko bu sa fësal na nga xeex boo jàppee bëri mu jeex man loolu laa koy cokkaas jàpp nag cokkaas jàpp loolu laa koy man loolu laa koy conseillé su ma indi loolu laa koy hmm. hmm. waaw Eumeu Sène Junior moom. xaw ma Grand Mbagnick moom laa laa gën a concentré quoi si laa gën a focus quoi waaw mooy loolu quoi waaw. waaw du ma mën waaw moo tax ma ne Grand Mbagnick daal hmm. li ma koy conseillé mu jéem a fexe ba jàpp bëre. Euh, arène activité yi bokk nga ci ñi fa mujjee bëre am ndam sa diggante ak Modou Dia bu Yoff euh, keroog bépp bi nga amee ndam ba léegi gisuñu caat caat ci lan na nekk. waa caat mu ngi si li mu waroon nekk si li muy nekk rek parce que boo xoolee boo xool bi ma bëree ba léegi le onze onze juillet le onze juillet ba léegi maa ngi si li ma war a nekk maa ngi samay mbokk parce que maa ngi si diggante Dionewar ak Dakar daanaka léegi li may toog Dionewar sama ëpp. ndax saison bi ñu tëj bi ñu xawoon tëj moo tax tey tey ji Dakar laa jóge ñoo fekkee si open presse bi nii nii su ma jógee fii dëkk balaa jamaat dëkk januar waaw bi ma daanee moo jo ba léegi maa ngi samay mbokk toog di saafoonteeg samay am si jàmm di saafoonteeg samay ñi nga xam si nit ñu baaxee ñoo ma doon ñaanal waaw mhm. instant yi bi nga ci jógee ba léegi promoteur yi ñu ngi lay contacter. waaw bi ma si jógee ba léegi promoteur contacter guñ ma nag mais am na ay yi wax seen i choix am na yi ñu wax seen i am na choix yoo xam ne nangu nañ leen ko am na ñoo xam ne tam leen ko parce que ñun làmb lañ fi nekkal. parce que nit ki boo demee ba opté dara ne làmb ngay def daal waroo tey mun a su su su sous-estimer benn mbër war nga bañ benn mbër waroo ko waroo ko mën a def. parce que xamoo xamoo ëllëg mbër bi ngay bañ fi ngay di fekkante ëllëg moo tax ma damay wax saa su ne mbër bi ma xam ne mën na war ndax combat may naan combat la mais bu ñu waxtaanee sama staff ba sama staff d'accord man mbër yi ma su ma ko bëre. Euh, amateurs yi yan combat lañ lay proposer actuellement ak yan combat la ñuy wax. amateur moom sama combat yi ñu gën a wax sama diggante maak Moussa la ak Diène Kaïré. Moussa Ndoye Diène Kaïré waaw ñaar ñoom moom ku si ñoom moom baax na. kan la ñuy waxaat. te man moom ñeneen ñoo xam ak Modou Dia ak Modou ñooñu kii kii Modou Anta. Modou Anta am na ñuy am na ñuy wax soq. Mm-hmm. waaw man moom ñaar ñi laa gën a focus quoi. Diène Kaïré ak Moussa Ndoye. ñeme ngaa jël Diène Kaïré. ah waaw Diène Kaïré Diène Kaïré xanaa du nit rek. xanaa gisoo bu ma ko jëlee bu abi sifflé wax baaxul sax. Thiat ñeme ngaa samp jaaga dem arène nationale jàkkaarloo jën kay. mais sama combat sama sama combat yi passé ko. stade ma fekk maa reporté ko. mu ngi waaw noonu man jën kay man su ma ba ma ba su ma demee ba am lu may tiit si moom. ma tekki sama ngéem dem dem defi leneen li mbëri di def dem liggéeyi. Hmm. man làmb ji amul benn mbër moo fi tëndeefal di fa xaar di ragal nii su ma fi jéem ragal ma déretu séeréer ma dem sànni ko fay dem wuti beneen xeet nekk fa. Hmm. parce que ñun ñun xamoo ñu ragal jom lañ am am fit fulla fayda leneen moom c'est déjà classé fale mun nañ bëre mun nañ ñuy def te bëgg nañ li ñuy def bu naw ñu benn mbër du ñu jaaxal te du ñu ragal benn mbër waaw man moom moom amu sama morom yi ku may kenn ku ma siy ragal képp ku si jël sama avant bu abi sifflé su ma jàppandee xanaa ngay da ngay daw de mais su ma yaa mbiy parce que gis nga ni mu def Modou Anta da koo agressé dox ci koom xeex ak moom daan ko déggoo li ma la wax Diène Kairé Diène Kairé Moussa Ndoye man kenn kenn mënu ma si agressé man kenn mënu ma amul benn mbër muy taxaw naa def may agressé amul benn mbër bu ñu taxaw naa def may agressé eh, amul benn mbër bu ñëw naa def may agressé billaahi Moussa Ndoye da mbaadu gis mu jóge ci Sa am defet nga jàpp ni nooy neex la da nga koo war a jël man loolu ma jël nooy neex sax barki alquran bu doon nooy neex moom du nooy neexu benn booy ma ne nooy neex man fu mu gën a xoolee man boo xoolee waxul bokk naa si mbëri nga si combat jànk rek la ñuy bëre sama sama sama sama génération man sama génération man nekk maa maa fi bëre gu bàyyi yoo xam ne sama morom kese laay bëre bëre gu ma fi beneen naataango ma xam ne nekk ko sama morom ku ma si bëre sama morom la mbëri ma bëre yëpp sama morom lañ bu amaguma benn mag boo xam ne nekk si ko may ma sens amagul waaw amagul bon nag boo gisee gars yi def sama combat ak Diène Kairé sama combat ak Diène Kairé dafa dafa raisonnable te ma war a mun a nekk waaw mu war a mun a nekk. daa mel ni yaa jën nga gën a sawar sax ka yàgg euh, Moussa. ñoom ñëpp parce que ñëpp la plupart ñëpp jën kay la ñuy wax mais jën kay xam naa papam du mu jël ma. nangu ko jën kay ah, loolu laa mun a parce que papam daa am fu si kaw daa am xool. fan lay xool papam papam daa am na combat yu muy visé. am na combat yu muy visé man ni may laajee Moussa Ndoye jën kay noonu lay laaj Moussa Ndoye. est-ce raw ci lamb. mun naa mun na ne. yéen ñaar yow yow yaa moom ku ku xamul luy problème bi moom su ma ubboon ubboon ba parce que muy problème bi kii Modou Anta def ma daan moom mu daan Modou Anta loolu mooy problème ñun te ñun loolu la ñu war a bàyyi di seet si làmb xool si làmb diw daan na diw ma daan diw war ma bëre diw mi nga xam diw daan na ko noonu loolu amul si làmb loolu amul si làmb bu ñu ay naataango gars yi bëgg suñu combat bi loolu mooy combat bi mooy combat bi parce que diggante ñaata Grand Dakar la ak Medina dér bi lay doon. sa bënn saañ ba mooy mooy moo tax ma wax la ko nag. moo tax gaa yëpp laa mbokk séeréer yi dar ko. Eh. dégg lu ma suma ma su ma duggee sa ni cinquante cinquante bi tolloo tolloo bi. dara du doy. barki alquran karim man mbëri léegi amatul amatul leen lu may tendee fal man déggoo li ma man su ma mënul daa man man jàng naa xam ne day rey mbër dama la fay dóor nga dee. du ma leen may dara. dóor ku lu leer laay tegal ni mën xeex moom. ah laaj ko Modou mu ñëwee di xeex naan indi xeex. moom moom gis na doon ma ñaari kuy dal me ku yooyu lijjantewu ma ko da ma dóor ma dox si kawam waaw mu door ñaari ku ma doxaat si kawam mu dóor ñaari kuy dal ma dox si kawam waaw ñu xeex xeex bu ñu raag raag bu metti noonu la fa demee nag man amatuma benn mbër bu may nekk fii tiit tàndee fa dugg fii ñaa di sikki sàkka man mu weesoo mbër yi nekk Ili Saloum ak mbër yi ma bokkal gox ñaatali mbër bu ma jox ma affronté ko. jeex na tax actuellement nii boo ma doon ñëwal ci làmb yi nga xamante ni euh, suñu ñenn ñi tëgg nañu ko tey boo boo mu doon analyser ci combat damay njëkk ñëw ci journée bi nga xam ne Bawol production moo ko organisé mu dox ci diggante général Malika fist de Balla combat boobu boo ma ko doon analyser en tant que mbër lan nga may wax ci combat boobu. waaw combat boobu li ma siy wax moom mooy général Malika fils de Balla man moom su ma doon jox favori général général Malika parce que moo bu compétition. moo ëpp compétition fuuf. nekku na di xeeb Fils de Balla noonu Fils de Balla tam champion la ndaanaan la. parce que daan dem na fay jéego daan na fay mbër yu mag. mais Général Malika lu mu compétir ren Fils de Balla compétir ko parce que loolu da ciy joué quoi waaw. mais Général Malika lan mooy avantage am ci combat boobu Fils de Balla lan la war a mën a moytu ak lan mooy avantage am ci combat. Fils de Balla lu mu war a mën a moytu Général Malika jàpp ko rek na moytu Général Malika na moom li may wax Fils de Balla moom na moytu seen amalika jàpp ko ba tafu ko waaw. Tapha Mbeur Ada Fass. waaw Tapha Mbeur Ada Fass waaw combat bu combat ba combat ñoom ñaar ay technicien lañ te ñoom ñaar ay booy lañ te ñoom ñaar du kenn du arrière. Mhm. waaw combat bu nga combat boobu moom sincèrement ñoom ñaar mais da nga si gis bu yéeme. ñoom ñaar ñoom da nga bu yéeme. doon ñoom ñaar nga doon xool ci wàll doole di xayma kan nga jàpp ni moo ci ëpp doole. ñoom ñaar dañoo tolloo parce que parce que dañoo tolloo si bëri tolloo ñoom ñaar combat bi ku nekk da ko fonk. moo tax du ma ne kii moo bëgg kenn ëpp si doole. doon mu daanu mën naa am ci combat bu baax bu leer parce que du ñu ay ragal parce que ñoom ñoom ñoom ñoom contre rendi bu ñu bëgg a def parce ku nekk dafa bugg a dafa dafa bëgg a daan sa morom dem fekk ji ñeneen ñi waaw. Modou Lo ak Ama Balde. waaw Modou Lo Ama Balde foofu la combat bi nekk quoi parce que jeunesse la ak expérience. parce que bu ñu ñëwee sax mën nañu wax jeunesse ak jeunesse que ñoom ñaar ñoo tolloo dayoo ñoo tolloo mais Ama Baldé titre roi des arènes da ko ko yàgg a boo demee bu demee ba bëreeg roi des arènes da koy jaral waaw da koy jaral lu ne dafa nekk mag boo xam mbër boo xam ne comme li Balla Gaye wax rek neexu neexut a préparé la waaw parce que dafa naqari affaire waaw. ñoom ñaar bu ñu doon bëre ci ñoom ñaar combat bi nga indi woon ku mel ni Modou Lo wala nga indi ku mel ni Ama Baldé lan nga koy digal pour mu bëri. waaw tey jii su ma nee ni Modou Lo dama ne premier premier bëreet Ama Baldé fexeel ba dekk ko rek premier bëreet tamit premier bëreet bi mu def fexeel ba dekk ko. àddina prix mu agressé la. agressé la waaw nga teew moo boo ci génnee si premier bëreet bi moom. leneen li si nga ko gérer. Ama Baldé. Ama Baldé moom moo ko doon conseillé si Modou Lo moom na fexeel ba bu combat bi parce que. day sonn loolu góobu ma ko. Hmm. li ma l'essentiel li ma si mën. nay moytu nay moytu songu songu songu boo xam ne baaxul songo aveugle. parce que Modou Lo il tout le temps el boo koy song loxo yaa ngi suuf. mu moytu mu moytu IPEC song aveugle daan ko song di song di sëgg di yor na ko moytu loolu laa koy moytu loo. ñoom ñaar Modou Lo Ama Baldé ku ci nekk mënu jël coup bu yàq làmbam. ah kay bu baax. coup dina yàq làmb mbër. bu baax a baax. coup dina yàq dina yàq lamb mbër. mos ngaa jël coup bu yàq sama. man non mosuma jël coup bu naa jël coup boo xam ne. ba ba làmb bi jeexe ba léegi mu ngi résonné si man. boobu na ma. maag doomu Jalaw la sama premier combat. mais teew ya man la yàlla may ndam mais bi pare bi combat passé maa ngi sentir coup mu demee woon expliqué ma. waaw coup bi boobu maa ngi bu bëri amagu amagu moom garde quoi kaw la woon. damay yëkkati sama loxo may laaw li may laaw rek saa yi dóor ma fii fii la dóor quoi. dafa dóor fi ma koy sentir sama yaram mais après dama arrière waat dama arrière ba dellu ba ba nekkaat ñëwaat. mais li ma arrière ba bëri ba pare yëpp ba demee kër ga coup baa ngi résonné la sama fii quoi muy jàpp sama fii. Mhm. léegi ngaa dóor mbër ku ku jeexal làmb ji. yee. kan la woon mos Ma Ndiaye ba dinañ fi ñu xeex xeex bu metti ku boobu moo jeexal làmb ji. Mhm. tey yaa ngi ci dëkk bi kañ nga fas yéene duggaat Dakar promoteur yi kañ lañ la fas yéene contacter kañ la caat caatu booy bambara fas yéene bëre. non xamaguma kañ laa fas yéene bëri mais su ma sañoon moom balaa saison bi balaa saison bi dañuy yegg di jeex ñu tëggal ma si combat ma dem préparer ñu demale ko déwén. su ma sañoon daal parce que instant yii promoteur yu bëri dañuy bàyyi ba combat yi gars yi fii seen jeex ñu doog a tëgg ay combat ñoo ko xool fi jaar. janvier bëgg naa ko kay. Hmm. bëgg naa ko de. barke ar barke Alxuraan bëgg naa ko billaahi bëgg naa ko de man su ma jógee fii dëkk fa laay dëkk ba laay delluwaat su ma yóbbu damay directement jonwaat le 10 moom mooy tax a dugg da mooy <laughs> le 10 Dakar laa jëm dem see dem fekkee ji combat bi parce que ñun foog ñu dem wane suñu déretu séeréer parce que dañoo dañoo gis a njuk quoi dañoo gis a yëngu. dañoo daa mel ni bàyyi na léegi bëre simple. daa mel ni bëre dóor rek mbëru bëre dóor li tradition bi nekkul question dañ ko bàyyi sax mais noonu nañ si dugg. mais bu ñu ñëwee ba si ban si dugg ba si biir dañoo toog waxtaan suñuy raq. Hmm. suñuy raq mbër yoo xam ne parce que man fépp séeréer fépp ñoo a yaakaar fépp laay dem di ñaanu léegi te fépp fu may dem di ñaanu fa am hmm. ku mel ni grand mbañik ma xam ne hmm. ñu bëri mu am na mu demee hmm. boobaa du ci dëkk bi fii Ibou Ndiaye noonu Sedi Dial ñaan noonu kenn keneen noonu loolu lañ ma tegal te loolu yëpp boo xam ne waxtaan na sa ku ne te ñoom dañ ma jox ci respecté ma la fa demee te bëggoo dem ci làmb di combine waaw bu ma dem ci làmb di combine loolu la quoi. ma lay jaajëfal bu baax kontaan naa. ma lay ziar bu baax waa di kontaan si bu baax waa di ziar waa Wassare Lamb yëpp di ñaanal yàlla defal leen jàmm defal leen wér. jërëjëf jërëjëf jërëjëf mbokk yi seetaan Wassare Lamb caatu booy bambara la woon ñu koy jaajëfal bu baax ci disponibilité am di leen jox dig daje ba ci kanam léegi ci open press xale bi nga xam ne mooy garambañik ci kanam tuuti ñu dem te ñëw jaajëf.